billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim déglooti leen ma woy fi binti faadilu soxna da bàyyi ka donnu seexi faadilu déglooti leen ma woy fi binti faadilu soxna da bàyyi ka donnu seexi faadilu déglooti leen ma woy fi binti faadilu soxna da bàyyi ka donnu seexi faadilu roqaya mooy turam wa ci amul morom jàpp na njaa muram di jaamu kay boroom roqaya mooy turam wa kii amul morom jàpp na njaamuram di jaamu kay borom bay faalu soxna jaare bi la bëgg a ba ñëpp xam ko jël ji kom faf di ko roy bay faalu soxna jaare bi la bëgg a way ba ñëpp xam ko jël ji kom faf di ko roy gaynde gu gar te xër te gëm Bamba dëggal mooy ki ko doon ki ku ko sopp koy dëggal gaynde gu gar te xër te gëm bamba dëggal mooy ki ko doon ki ku ko sopp xëy dëggal auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala wa mawlana muhammadin wa ala wa sahaabihi wa sallama tasliman mbokk yi nuy seetaan fu ngeen a ne ci réew mi ak ci bitim réew noo ngi yeesal ab nuyoo akub siyaar dooree ko ci sunu xalifa gu tedd ga muy cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbacke ibnu cheikh Mouhamadul Bachir xalif général kullu murit tey ñaan sunu borom yàlla yàggal ko fi lool te mu wér waaye di siyaare baax rakkam ji nga xam ni moom la ñu nekk ci ab ëttam tey nga xam ni mooy kilifa kër gii di Serigne Fallou Mbacke moom cheikh Mouhamadul Bachir borom Touba Tawfiq tey ñaan sunu borom yàlla yàggal ko fi waaye yàggal fi jaam jaamaatam bi. ki nga xam ne jotaay bii sabab bi ci moom la doore muy sunu sëriñ di sunu jëwriñ ci liggéeyub sëriñ Touba bi muy soxna Roqaya Mbakke bintu sëriñ Fallilu nu toog nii cib ëttam di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér jotaay bi nag li ko sabab bokk yi mooy noo ngi waaj eh, bis bee nga xam ni ci la nu yàlla joxoon sunu jàmbaar ju tedd ja jaare ko woon ci suñu sëriñ bu tedd ba muy cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne ci weeru rajab wii ci la gane woon àddina ci weer wu tedd wii nga xam ni eh, wax nañu ne saaba yi daawuñu ko xare ndax war mal ko ci lañu amee woon suñu jàmbaar ju tedd jooju di cheikh mouhamadul fadal nu fas yéenee nag waaj màggalu kazu rajab goo xam ni laytaay gi mooy ndigalal ki nga xamante ni bii moo njëkk a wuutu cheikh Mouhamadul Fadal muy sëriñ Moustapha diilu ñu gën koo xam ci sëriñ Modou Boussa Dieng nun waa njaareem cër bi nu am ci màggalu Kazu Rajab moo ko joxoon sunu sang bi di soxna Roqaya Mbàkke bint sëriñ Falilu jox ko ndigal ngir muy màggale fii ci dëkk bu tedd bii di njaareem loolee nag dëppoo ak ndigalul kilifaam gu tedd ga di sëriñ Moustapha fa euh, sëriñ Moustapha Bachir mi nga xam ni moo wutu woon Cheikh Mouhamadul Bachir ca jamono jooja waaye ba tey nag mu yegg si ci ki nga xamante ni bii mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ak sangam ba sëriñ Fallou moom sëriñ Bachir tey nag fédération soppe sëriñ Fallilou ñoo fas yéene woote eh, mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ak waa njaareem eh, màggalu kazu rajab ñu toog ko nag ak sunu kilifa gu baax gii ngeen di gis muy sëriñ Moussa Mbakke moom soxna Daba Mbakke moom sëriñ Fallilu waaye sëriñ Moussa Mbakke moom sëriñ Fallilu moom Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jotaay bi nag ñii lañu koy tënke eh, dañuy jox kàddu sëriñ Sadeex Cuun jëwrin moom mooy woote ci turu fédération soppe Serigne Fallou yëpp fépp fu ab jëwri nekk dana la woote soññ la yàgg sa mbooloo bu ñu noppee Cheikh Mouhamadul Mourtada Fall jëwrin moom itam dana woote ci turu daahira maam jaara yi nga xam ni ñoo soxna Daba Fallilu ñoo bokk pas-pas di liggéeyal soxna jaara bu ñu noppee nag suñu jëwrin Serigne Fallou ñing moo yëkkati kàddu gi bàyyikoo ci soxna si jaar ci Serigne Abibu Mbakke ak Serigne Moussa mii toog ñu daal di tëj jotaay bi kon dañuy yëkkati kaddu gi jox ko sëriñ Saddex Thioune. bismillaahi rahmaani rahim mbokki jullit yi ni bàyyi xel asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu àq te di leen balaq di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadou Muntaxa di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi te wéral ko naal yi nga xamante ne bi fekk na gaa yu baax yi naalal ko sëriñ Tuubaa mu yëggale naal yëpp ak naal yi boppam ñu naal la sëriñ bi. mool ko jullit yépp ak taalibi yépp barke borom tuba di ko ñaanal sunu sang bu tedd bi seen alhaji fallu mbàkke mu cheikh mohamadul bachir ak jëwriñam ji nga xam ne moo nekk fii ci njaarim ci tund wi ñuy wax kër gu mag muy sama daa mbàkke bin cheikh mohamadul fadal ñu ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko te aar ko te musal ko ci làmmin ak lépp luy gàllankoore ak mboolewum jullit ak bépp taalibum àndal comme ni ko cheikh mourtala waxee nag noo ngi siyaar mbokk taalib yi ci saal bi yépp di àndandoog yom liggéey bi ginnaaw loolu it comme ni mu ko waxee ñoo ngi woote di woo jëwriñ yi nga xamante ne bii ñoom la Sones samp ci gox goxaat yi nga xamante ne bii ñoo na ci biir dëkk bi ak li na ci biti dëkk bi mooy cellule bi nga xamante ni moo ci njëkk muy cellule A ngi woo jëwriñ yi nga xamante ne bii ñoo fi mës jaar yëpp ba ci jëwriñ ji leen fi wuutu tey muy Serigne Alhaji Diop ñu ngi koy woo moom membre yi àndal bokk ak ñoom liggéey bi yëpp di leen wax ne liggéey bi moom fi toll nii door na daanaka ayu bisa ngi nii waxtu wu ñu xëyee ci màggal gi la ñuy xëy ci màggal gi la ñuy gont kon ñu ngi leen woo ak daayira yi nga xam te ni moom nga àndal yëpp muy daayira cellule A ñu waajal bis bi waajal li nga xam ne mooy jébbale kees bi nga xamante ni bi moom leen fa yéene amal fii le cinq incha allah rabbi buñ ci jógee daayira yi nga xam te ni ñoo ci topp ku demee ni Serigne Thierno Gueye nekk fii ci koñ bi di daayira boo xamante ni moom it daayira bu mag a mag la ànd koog sëñ Mourtala Fall ak jëw ñu ci àndal yëpp ñu ngi leen woo ak membre yu àndal yëpp rawat na nag membre yu nekk bitim réew ñu ngi leen ci woo ñu gën a teel a jege si gën a teel a waajal màggal gi ndax màggal kenn umpalewul ne jege si na buñ si jógee dem ba Grand Diourbel sëriñ Abdou Khader Tamba moo fa teewal soxna si ak njaboot gi nga xam te ne ñoo la fa nekkal di fa liggéey ñu ngi koy woo moom it ak mbooloo mi mu àndal bokk ak ñoom liggéey bi yëpp ñu waajal liggéey bi ndax liggéey bi kenn umpalewul ne fi ñu toll nii nii nii nii door na waroon koo muy kuréel isbullahi karim nga xamante ni bii moo nekk fii ci biir kër gi ndax kuréel gi kenn umpalewul na ñoom it la am na bis bu mag boo xamante ni bii dañ koy amal muy ngont moo xam ne at mu ne daan ko amal fii ci buntu kër gi boo màggal gi desee ay fan te ren ñu jàpp ko def naa le vingt cinq incha allahu rabbi war a tombeeg le vingt six war a tombeeg samedi incha allahu rabbi naka noonu it noonu la buñ ci jógee ñu ngi woo soxna ami bay mu féere fa boori dembewele moom it ñu ngi koy woo ak daayira bi mu àndal yëpp buñ fa jógee it ñu ngi dem ba Kër Baay Laay foofu it ñaari daayira maam Jaara dafaa ne muy soxna Anta ak soxna maam Jaara ma nga xamante ni moo fi nekkoon ak soxna Sofi ñu ngi leen di woo wax leen ñoom it ñu teel a xale yi ñoom it bu jàmbaare lan daayira bu bëgg soxna si lan di ay tout tànk ay ndaw ñu ngi leen woo ñu teel a si teel a ñëw ci jàpp ci liggéey bi teel ñëw jëfe yi nga xamante ni mooy ndigalal Sëriñ moom lañ soxna si jox ñu fas ko wëyal fas ko amale fi ci kër gu mag buñ fa joggé dem ba kër cheikh soxna ami njaay mo fa nek momi di jëwriñu mam Cheikh Fall di jëwriñ soxna dawa di jëwriñ jo xamanteni bi tanef la ci bir jëwriñ ñu ngi koy mo mbolo mi mu andal yépp ci liggéey bi ndax ren ndigal li nga xamanteni mom lañu am moy dañu bëgg goor jigen ñëpp ñëw japp ci liggéey bi ndax magal ren gi kat da nek magal go xamanteni magal gu ni la ndax ku ne gis na ni mu demee ak at yi ci ginnaaw li ñu façon façon bi nu màggale ren ku ne kenn umpalewu na nañu daa màggale nu ko raw la ñu fas yéenee ba tey ñoo ngi woo daayira bi nga xamante ne bii moom la ñu waroon a jiite muy daayira turandooy Serigne Fallou yi ñu mën koo wax ne daayira soppee Serigne Fallou yi nga xam ne ñoo ngi ci biir dëkk bi di daayira boo xamante ni bii daayira bu soxna si fonk la daayira bu soxna si bàyyi xel la ngir lan moom daa amul ku dul Serigne Fallou te léppam di Serigne Fallou moo tax ñuy waroon a jiital daayira soppee sëriñ fàllu yooyu yi nga xamante ne bii ñoo ngi ci biir dëkk bi ak ci biir Sénégal gépp fépp daayira soppee sëriñ fàllu ne ñoo ngi lay woo ci bisub màggalu Kazu Rajab bi nga xamante ne bii fas yéene nañ koo amal le 28 février bii ñu nekk incha allah rabbi fii ci buntu kër son da Mbàkke bi Cheikh Amadou Fadal okaas njaareem jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp tey siyaar di jiital ci nuyoo bi ak cant gi ak siyaar bi Cheikh Maodul Mountakha ibnu Cheikh Maodul Bachir mu yàgg fi loolu tànd ak wér ba ko maam ji Sëriñ Tuubaa mu la ñuy santee tey siyaar Cheikh Maodul Fadal ibnu Cheikh Mahamadul Bachir sunu ko ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ak wér di sant tey siyaar tey nuyu jàmbaaram ji soxna Daba Mbàkke bintu Cheikh Maodul Fadal jàmbaari Poroxaan ñoo ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi te wér yàggal liggéeyal maam ji te yàgg ko ànd ak donga yi barki Serigne Touba. nuyoo Serigne Moussa Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mi ngi ci jataay bi toog fi toogaay bi Serigne Touba ñoo ngi koy nuyu bu baax baax Cheikh Moussa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd noonu la nuyoo Serigne Abibou Mbacke ak waa kër Cheikh Mouhamadul Fadal ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir gépp di nuyu mbokki taali bi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk nekk fii di jiital ci nuyoo bi sunu bàyyi sunu mag sëriñ Sidi Fallou ñu ngi di sunu jëwrin di nuyu jëwrin Talla Ndiaye ak jëwrin yi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi yëpp mel ni dañuy jub loo xam ni mooy sunu bésum mbégte muy lan muy Kazu Rajab muy kañ le 28 février 2022 fii ci Njaareem lan la ñuy waaj mooy màggal gi ñu doon waaj di ko def at mu jot fii ci kër Soxna Doomu Mbàkke bint Cheikh Mouhamadou soxna si nag mi ngi woo daayira Maam Jaara yëpp te di wax ni mi ngi leen di sant di leen gërëm ci màggalu poroxaan gi ñu génn ci pastif gi ak njàmbaar gi ak farlo gi ak joxe lépp gi nga xam ne def ngeen ko mi ngi ñaan ci barki Serigne Touba barkeb soxna jaara bu déwénee ñëpp mataat ñëpp ñëwaat ci barki Serigne Touba ñu màggale ko nañ ko màggale woon soxna si nee na mi ngi woo daare maam jaara yëpp nekk fii ci biir Jurbel ak li ko wër bàyyiwul kenn màggal gi nee na la muy altine bii ñu jëm mu ko doon defee ci kër nee na daayira yi maam yi na mu ko daan defee noonu la koy defee te na ko doon defee noonu la bëgg ngeen ñëw ngeen ànd kook ñoom liggéeyal ko Serigne Touba liggéeyal ko Seex Ahmadou Fadal lépp loo xam ne mooy matuwaay bu ñu daan jël fa kër yañ daan dal lépp mat na fépp fu ngeen daan nekk daayira bu ñëw bu siyaaree ba noppi xam na fa mu daan nekk na fa demaat lépp toppatoo nañ ko lépp mat na insha allahu taala karim altine le 28 février 2022 fii ci njaaree màggal Kazu Rajab màggal Seex Ahmadou Fadal kër soxna da noonu mu wooyee daayira yi woo ko soppé yi nga xam ay soppé soxna jaar lañ ay soppé yi fall lañ ay soppé soxna Daw mbak bin Cheikh Modou Fadal lañ dan and ak mom ci magal gi tambali gi ba ba ñaan soxna si mi ngi leen di woowaat xam seenu jambar xamna seenu farlu xamna na ngeen daan ñëwee xam ngeen na ngeen daan ñëwee képp ko xam ñëw nga nañ ko doon defee rek non lañ ko defee ku siaré ba nopi fa nga daan dal lepp man na do nga ya daan and ak yow yobul la ngir dal la topato la topato nañ lepp ba ren dal yu mucc ayib dana fa am insha allahu kon soxna daba neena mo ngi wo soppé yépp di leen ñaanal ci barki sëñ Fallou lépp luy seen yéene ci bis bi yàlla na ko sëñ Touba mottali yàlla na ko sëñ Fallou mottali jërëjëfati soxna Daba jërëjëfati soxna Daba jërëjëfati soxna Daba rajim bisimilahi rahmaani rahim barki Cheikh Amadou Fada di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg te wér lool ci barki Serigne Fallou di ñaanal ki nga xam ne mooy Serigne Abo Mbacke Baraka mu fi toog toogaayam Cheikh Amadou Fada di ñaanal sunu jàmbaar di Serigne Fallou Mbacke moom Cheikh Mamadou Bachir rawatina taalibeem ab dongaam muy ajaratu soxna Daba Mbacke moom Serigne Fallou kaddu yi ñuy yëkkati nag di ko yëkkati si turu soxna Daba Mbacke moom Serigne Fallou di ko jaarale si doomam ju baax ji toog ci suñu biir di Serigne Moussa Mbacke moom a Mamadou Fadal moom Cheikh Mamadou Fadal moom Cheikh Mamadou Bachir. di ko ñaanal wér ak gudd fan ak magam ju baax ji sëriñ Abibu Mbàkke ñaanal bu baax suñu jëwriñ ju baax ji di sëriñ Taala Njaay mi nga xam ne moom la nu soxna si dénk ñu ànd ak moom ak képp koo xam ne bokk nga si fédération soxna saa ngi woote bis bi nga xam ne moom la daan def fii si njaareem jële ko si ndigal lu sangam bu baax ba sëriñam doomi sëriñam muy Cheikh Modou Moussa Fallilou gën koo xam ci sëriñ Modou Bousso Dieng soxna si nag digal loolu wàccoon ci sangam bu tedd bi sëriñ Fallou Mbacke moom Cheikh Mamadou Basir mu ànd ko ak waa njaarim képp waaye nag ren ji dafa wax ni bis bi da ko fas yéene ànd ak képp koo xam ni jullit nga te dëkk si dëkk bi wala nga wër dëkk bi di si jiital nag ñi nga xam ni mooy autorité yi mu bokkal dëkk nga xam ni ay jàmbaar lan ay taalibe lan saa bu jógee gis leen ànd ak ñoom liggéeyal Serigne Touba kon soxna saa ngi woo képp koo xam ne autorité nga te nekk si dëkk bi di fàttaleet ñi nga xam ne ñooy suñu bokki taalibe yi muy jullit yi ndax kat nag bàyyam moo xoon may Sénégal te nag bis bi bisu waa Sénégal la rawatina njabootu Seydina Mouhamadou Rasulullah bokk yi woote baa ngi noonu ci turu Soxna Daba Mbacke bintu Cheikh Mamadou Fadal ak njabootam asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu jërëjëf Serigne Fallilou jërëjëf mbokk yi bis baa ngi noonu ginnaaw bi nga xamee ne Serigne dex Thioune yëkkati na kàddoom jëmale ko ci daahira soppe Serigne Fallilou yi Cheikh Mamadou Mourtada yëkkati ay kàddoom jëmale ko ci woo mbooleem daahira yi noonee la sunu waajur eh, tëje jotaay bi muy Serigne Sidi Fallou ñing woote ci turu sunu sang ak njabootam muy soxna Roqaya Mbacke bintu Serigne Fallou bokk bis baa ngoog noo ngi ciy woo ñëpp jullit yëpp ak taalibe yëpp fii lay xewee ci okaas ci buntu kër soxna Roqaya Mbacke bintu Serigne Fallou yàlla nañu ci yegg ak jàmm na ñëpp tàllal loxo sëriñ Moussa Mbacke ñaan ñu yëkkati jotaay bi. كبارك ساقي فادلومي رحمتنا آمين آمين للن آمين كبارك ساق فلومي رحمتنا سبحان ربك رب العزة ما سر وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين أدي سنفلو